Ramatoulaye Samba, nek présidente Union pour la solidarité et le développement donc euh, yag touti ci arène politique bi nekkoon ci élément Bamba Fall di le maire sortant donc euh, bi ma duggee benn bokk yaakaar maa ngi dugg ak le président Ablaye Sow bu Kër Massar Moma intégré ci benno bokk Yakar bi après finalement ma nekk ak le coordinateur de la Médina ku gërëmul nit doo gërëm yàlla parce que Bamba ci ñi ma tàggat ci la bokk wax dëgg yàlla mais nag nit ku nekk da am vision bëgg gis lu gën a leer lu gën a kii ci la ma Ablaye Sow dugalee eh, benn Bokk Yaakaar ak la coordinateur Seydou Gueye ma liggéey fa liggéey bu rëy ndax liggéey booboo tey gii Mame Mbaye Niang ci boppam fàttewu ko en 2019 mu indiwaat ma ci mu indiwaat ma ci nouvelle euh, vision pour 2035 nouvel horizon pour 2035 donc euh, ci liggéey bi bëri na bu mujju bi rek li xam dama ko dund en politique te Ablaye Sow ñëwoon fi duñu seex tay gi ñom ñoom Barthélémy en fait karoon ñu rue 25 attaque bobu mo fi amone ci élection 2019 kon gi warona sama bop bu parce que nak ku jele nit keur Massar imposé ko Medina ba donc sama mais le bienfait n'est jamais perdu Lolo, indi tay gi Mambay boole Momar ñu nous ko ci ci élection locale yi dem nga xamné mom doomu medina la té ci Medina, lay lay ancien maire exemplaire choix yi ma gis ci mom dafa bëri qualité yi ma gis ci mom dafa bëri motax bima ko mambay waxe ak du jaan jekko nga xamni sama kilifa la ma meuna and ak euh, porter sama choix ci Pape Momar parce que arène bi ñaari nit rek liñ fi doon deg donc yeexul ndax yalla buy defar day melni kuy ñun ñep ñu ngi togon mais man mi hein j'étais pas prête pour élection locale naruma won jappalé sax ki la maire bi ak kiñ fi le numéro 10 non naruma len won sax jappalé dama décidé won voté ji comme citoyen normal mais nag Mame Mbaye Niang dafa nekk nitu dëgg nitu parole te ma xam ko ci élection présidentielle le me découvrir donc ba ma woowee wax ak man Doudou Diagne ma ne amul benn problème dinaa si jàpp leader yu bëri euh, ñun jeunes yi dañu war vision 2035 dañu bàyyi ay tàccoog topp ci leader ndax soo nekkoon di liggéey di liggéey ndax euh, ñàkk du réer daal ndax tey Mambay bu ko neexoon du def ci liste Medina deuxième majorité ville de Dakar aussi waaw loolu tam ville de Dakar nouvelle euh, vision 2035 maa liste ville de Dakar di fas yéene battre campagne nag pour def beneen changement pour mën a dugg ci arène politique bi ci coalition 2035 bi on a l'avenir devant nous te loolu suñ ko bëggee yar moo ñu koy may ñu dugg wax ak nit ñi suñu waajur yi fi nekk suñu mag yeeg suñu tataay xam nañu seeni doom lañ te bëgg nañ ñu nekk dara comprendre nga ci biir réew mi bàyyi bi mooy da dem ba gisoo ci sa bopp bu dul man maa ngi liggéey mais ñi ma àndal tamit am na ñoo xamante ni xëyuñu tëj seen kër yi te ñu nekk ay grande dame de valeur ànduma ak ay coalition mboco mboco ñu war ci gis seen bopp ñu ci gisu seen bopp seen doom yi gis ci seen bopp tey gi su liste amaatee ñu ñëw ne diw Seydou wooñu nañu nañu topp ci kiñ fi ki fi Macky teg mais man du topp ci ginnaaw kooku di leen lancer appel pour wax leen ne ne bii pas élection yi élection gox la na ñëpp ubbi seen bët yi waa Gibraltar Médina ville de Dakar sama maam fa la juddoo muy Félix Faure donc may lébu ci nday ak ci bay dekk setu sendom di len wax ne ne seen euh, japa le. pour ñu jëm ko jappalé